doxalewul noonu euh, mais ci mbirub ay jigéen ak góor peut-être que ils vont rectifier plus ou nuñ koy été au fur et à mesure mais la présence féminine elle a quand même été importante parce que nag coow li bari mais euh, ñoom ñooy gën a voté aussi Mambay voilà euh, ci kanam tuuti ah dinañ am le ministre Abdoulaye Seydou Sow moom it ñu ngi koy préparé parce que disponible na dañ ko ci kanam tuuti le ministre Abdoulaye Seydou Sow parce que foofu non yéen ñëpp da ngeen am ne mooy ministre Abdoulaye Seydou dañu dem ca Koungheul la ñu fay fekk Alioune Badara Ly moom it euh, xam nañ ne euh, benn bokk yaakaar la bokk sa Koungheul moom Alioune Badara Ly mais liste parallèle la demee woon euh, mais moom moo gagné foofee sa Koungheul Alioune Badara Ly maa ngi lay nuyu. Ba Badou Ly. oui. maa ngi lay nuyu. fay naa la mam mbay ana waa Koungheul. ñu ngi lay laaj bu baax a baax. non il faut ma ñëw ku nga seet si leen. <laughs> non il faut nga ñëw je t'invite à venir incha allah. voilà noo yeewoo gannaaw bi ñu xamee ne kon foofee ca Koungheul jël nga ndam li foofee. waaw sant yàlla bu baax rek. Mhm. jàpp ne ndam li ndamul Koungheul la. parce que tey defe naa ne euh, métti woon lool mais ñu àndoon ci ak ngëm. Mhm. àndoon ci ak ngëm-ngëm. jàpp ne li ñu nekkoon di def. bëgg suñu dëkk moo ñu ko taxoon a def. Koungheul tamit comprendre loolu jàppale ñu ci. démb may bay yàlla may ñu ndam loo xamante tey kenn wu ko. kon vraiment sentiment wu mbégte la. sentiment wu sant yàlla la. en tout cas euh, yàlla daal ñu ngi koy sant di ko gërëm. voilà euh, euh, foofu particularité bi moo nekk foofee gis ngeen moom euh, Alioune Badara Ly benn bokk yaakaar dafa am keneen ku mu fa tegoon moom benn bokk yaakaar la ne mais mu dem ak liste ba beneen beneen liste parallèle mais moom moom moom moo gagné est ce que loolee dafay dafay dëggal ne kon foofu tànneef bi nga xam ne président Macky Sall defoon na ko askan wi ànduñu si waaw xam nga tànneef bi président defoon fii ci Koungheul du ma ko ŋàññi parce que tànneef la boo xamante ni tey ñun jàpp nañ ne moom dafa deme woon benn logique mooy fépp foo xam ne am na fa maire boo xamante ni jàpp na ne mën na gagné moom la jël jiital mais man nag ma amoon benn réalité fii parce que ma amoon benn contrat moral bu ma lié woon ak waa Koungheul bon ñu sàkku woon pour man ma nekk candidat nekk seen maire man nangul leen ko dem def liste ñëw taxaw kon bu ñu yàlla defalee ndam ci kaw Benno Bokk Yaakaar damay jàpp ne rek benn moo gagné parce que man ku ma xam xamee ma président de la république Macky Sall kon tey ndam li dama koy jëlaat rek jébbalaat ko président de la république moo xam ne moom moo gagné Koungheul parce que kenn ci ay ñooñam moo gagné. di xaar est est-ce que woon ci liste yi nga xam ne président Macky Sall dem leen parrainé woon. waaw mais xam nga euh, Mame Mbaye man directeur national la. jàpp naa ne tey bu ma nekkee candidat ah daf ci. Euh, daf ko cautionné parce que su ko nanguwul woon defe naa ne dug kon xam ne rek ndigalam vraiment moom la ñuy wéyee su ne te am ngëm-ngëm ci moom moo ñu tax a nekk kandida jàpp ne fii ci Koungheul kat liggéeyal nañ ko fi liggéey bu mucc ayib boo xam ne waruñoo mun a seetaan ba Koungheul di tàbbi ci yeneen loxo yi dul loxo yi mu moom moom moo ma tax a nekk candidat yàlla suturaal ma nag ba vraiment defal ma ndam ci kaw loolu donc maa ngi sant waa Koungheul yëpp vraiment ci ndam li nga xamante ni tey yàlla jox nañu ko parce que lépp luy njiit ñoom ñooy njaag la ñoom ñoo ci jàpp ñoom ñoo ma jàppale ñoo ma gunge rawatina ndaw ñi ak jigéen ñi ba yàlla defal ñu ci vraiment jàmm. alors foofu lan mooy nekk les défis à relever. bon les défis sont énormes parce que dëkk bi tey tout reste à refaire boo xoolee fi nga xam ne lañu ñu toll ci dëkk bi mooy bëri na fi yàqu-yàqu yoo xamante ni bon. le le le maire sortant ak ñi mu àndaloon def nañ ko fii donc tey suñu défi mooy fexe tabax dëkk bi benn mais aussi jàppale ndaw ñi ci wàllu employabilité des jeunes éventuellement aussi gunge jigéen ñi vers des opérations de génération bon opérations génératrices de revenus mel ni groupement promotion féminin yeeg yooyu mm-hmm. gunge leen vers des formations ensuite fexe bi nga xamante ni dina leen accéder au au crédit permettre leen ñu générer des revenus yu leen mën a ñu vivre décemment. donc euh, naa ne daal yooyu grosso modo yooyu mooy chantier yi nga xam ne tey ñun war nañ ci taxaw en urgence pour jéem a xool luñ ko defee. alors ñu ngi lay euh, euh, Birahim Touré. mi ngi plateau bi également Badouli. waaw euh, monsieur le maire maa ngi bu baax est-ce que man je vais juste revenir sur question wu Mambey bi finalement. est-ce que finalement ñi yoroon seen liste parallèle. ils ont eu raison de forcer pour mën a dem parce que gis nañu ci yéen ñi amoon liste parallèle. génn mhm. nañ ci je prends le cas de Kolda avec Mambo Diaw je prends votre cas ak ñeneen ñoo mhm. ci feneen ci yeneen i bërëb ñoom mhm. liste parallèle jox euh, li ñu am ci doole ci biir Benno Bokk Yaakaar finalement vous avez eu raison de de forcer le destin entre guillemets. waaw loolu moom bon je ne te contredis pas je sais que loolu la parce que tey defe naa ne li nga xam ne yàlla defal nañu ko day wane tout simplement que quelque part on na investi des gens yoo xamante ni c'était pas vraiment les vrais leaders ci Benno Bokk Yaakaar parce que man liste bi ma jiite fii tey ci Koungheul quasiment tous les grands partis yi nga xam ne ñoo nekk biir Benno Bokk Yaakaar ils étaient sur ma liste donc en réalité la le vrai Benno c'était ma hmm. kon loolu tamit dafay wane rek encore une fois de plus que il va falloir que prochainement bu ñuy def ay investiture ñu xool bu baax les hommes qu'il faut mettre parce que opération périlleuse boo xam ne am na ñooy jiital rek ñoo xamante ni def vraiment li liggéey bi gars yi doon xaar ci ñoom. c'est la gestion donc, mais... en fait yéen da ngeen a. Euh, euh, jël ma ne yéen réceptacle ngeen nekkoon ci frustré yu Benno Bokk Yaakaar ak peut-être yeneen i coalition aussi. waaw non du ñu ay frustré sax en réalité dañu bokk ci benn groupe bi ñu bokk nag mu nekk ñu nekk dans un système démocratique kenn ku war nga mun a wéyee sa xalaat donc loolu la rek. donc pluralité d'opinion la ñun ñu amoon gis-gis que ne dañ war a taxaw ci élection yi taxaw nañ ci comme ni ko PS membre Benno Bokk Yaakaar defee ci gox yu bëri bokk na ci goxu Koungheul am fi candidat samp ko jàkkaarloog Benno donc loolu day wane encore une fois de plus rek nous sommes dans un jeu démocratique boo xamante ni kenn ko ci ne am nga droit wéyee sa xalaat ak sa gis-gis donc loolu la rek mais du frustration jaajëf jaajëf merci merci jaajëf Mame Mbaye Alioune Badara maa ngi leen gërëm jaajëf moom moom moom mujjee falu foofee nga xam ne moo di sa Koungheul Papa Assane directeur rouge aménagement. ah oui oui eh, kii bu ñu ko jox kii paysager. voilà c'est lui Alioune Badara lii. Papa ñu ngi lay nuyu. bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim bismillahi rahmaani rahim. asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. massa leen massa massa leen sonn ngeen de. Hmm, sonn ngeen de. non yéen ñëpp yéen ñëpp da ngeen sonn. 6 naa ko démb euh, Mamadou yow yaa ngi ci terrain bi. ñoo ci terrain bi. ak. Euh, wallaay wallaay. bravo à toute l' équipe. à Simon et à tout le monde. à Mambay à Yacine Seck. ak ñi fi nekkoon ñëpp. vraiment euh, toute la maison a bougé. yàlla na mm. yàlla yokk kër gi. yokk ko yokk ko ba baax. la maam. nuyu na ma la da nga bëgg ma teg si dara. laay fay na ma la sa mbokki tëngee ci démb dañ la doon laaj rek mais félicitations dégg naa seen boor yee yow da nga fa am ndam waaw waaw waaw yow ak euh, sa gaañ <laughs> Aline Aline Aline Mar gëm sa bopp <laughs> yàlla na yàlla yokk allahumma amin ah, alors euh, euh, di leen xamal ne ci kanam tuuti Abdoulaye Seydou Sow mi ngi mi mi dina hmm. dugg mi ngi ci ligne bi ndax moom mi dafa bokk si ñi am ndam hmm. ca Kaffrine mi ngi doon xëccoox Kaffrine commune nañ ko ngi doon xëccoox également Kaffrine waa ji parti socialiste bi ki nekk parti socialiste. Wilane non mhm. euh, euh, ko jotee rek dañuy dañ ciy dugg ah mais dañ dañ nekkoon fa am solo euh, Pape mhm. ci dañ doon def taxaw seetlu ci benn bokk yaakaar ñu bëri mhm. jàpp ne kon sanction la seen biir ndax sax du ñeneen ñoo leen gañe mais si seen biir ñoom ñoo gañe seen bopp parce que bu ñu taxawalee ay listes parallèles ñeneen ñu waroon leen votel def sanctionné je pense que ñoom ñoo gañe lu seen bopp waaw je pense euh, bu ma dégloo monsieur Ly ci ci jàngat bi euh, loolu mun nañ ko xalaat mais <clears throat> ci ci ci yenn zone peut-être pas pas partout hmm? pas en grande majorité aussi parce que am na ñeneen ñoo xam ne demal nañ seen bopp aussi ils ont perdu man li ma gis ma ma mbay hmm. c'est juste ay sénégalais quand on parle de frustration ci waa Benno certes am na parce que bu ma xoolee même dans la zone de de de fu mel ni Dalifort euh, gis naa le cas Awania ak ay partisans am à moment donné même bu dee moom wanewu ko ñi ànd ak moom wane nañ ni que ils sont pas contents parce que à la place de peut-être Baye Diop qui est maire ñoom ils auraient aimé que Awa Bokk nekk euh, ku ñuy ku ñuy ku ñuy placé mais loolu ci ay coin la ak ay mhm. ay ay compartiment mais la réalité mooy que l'ensemble des Sénégalais qui ont voté hier la plus grande majorité ñoom ñoo am frustration à l'endroit d'un pouvoir en mhm. général ñoom ñoo am frustration et cette frustration là dafa am lu ko gangréné lu bare bare bare nit ñi dajale ko départ nag daal di jëm ci élection yi avec une bonne campagne de Yewwi Askan Wi loolu mooy dëgg bi une excellente campagne on a vu une très grande mobilisation ñi nga xam ne dañ nekk ci Benno def campagne bu baax ñoom tamit mais sauf que euh, la réalité elle est là en face de nous sénégalais yi ñoo wane seen bopp ci ces élections là léegi nag y a quelque chose de bien qui est arrivé à ce pays là hmm, démb dama ko constaté et je m'en suis réjoui sans prétention mooy la prise de conscience effective bi nga xam ni peut-être man doon naa ko yaakaar à l'endroit ci pouvoir bi nekk en place doon ko yaakaar depuis ci référendum 2019 ak fi ñu toll nii j'ai cette cette benn genre conscience que que justement les gens qui sont dans ce pouvoir là acceptent la réalité qui est que gars yi gagné nañu il faut l'accepter et ça ça présage de quelque chose d'excellent wax dëgg yàlla bu ñu waxalee yàlla ça veut dire que am na benn maturité je dirais pas démocratique mais très politique boo xam ni ñi ci nguur gi ils se sont rendus compte de la réalité qui est que les gars nous n'avons pas bien travaillé on nous a sanctionné nous allons euh. refaire plus d'efforts dans un autre sens et un autre avenir et à juste raison et ça ça s'appelle de la sagesse loolu moo la nit que intelligent am na yaakaar aussi njot que quand on a annoncé un point de presse hier à vingt 22 heures pour Benno toogaat tuuti mel ni lu ci génnaat jàpp ko tey damay am njort bu rafet jëmale ko ci président Macky Sall ne amaana moo ne gars yi hey bu leen ma fontoo gañe na leen ci sama ñàkk a maandu peut-être ma waxee noonu. Mm. mais li am mm. solo daal mooy un message a été transféré à l'adresse d'un pouvoir nguur bi nag léegi moo war a décoder ce message la pour rectifier la tir gis naa Birahim di ko wax sànq. Mm-hmm. mooy gaa ñi gën a gën a liggéey. Mm-hmm. et amul leen beneen message bu ñu mën a jox nguur bi tey budul gën leen ngeen góor góorgóorlu nag ne veut pas dire que. yéen da ngeen war a forcé toogaat fi pour un troisième mandat. ça veut juste dire que vous devez travailler dans le bon sens benn ensuite fexe ut seen candidat pour bokk ci élection.